mbokk yi yéen ñi am jafe-jafe ci seen wàllu wér-gi-yaram mën ngeen a ñëw fii ci géejawaay ci arrêt Double ci sëriñ Mouhamadou Lamine Bara Fall mu jàppale leen ci seen wàllu jafe-jafe ak seen wàllu wér-gi-yaram jokkalool ak man ci numéro yi may bind 77 646 41 21 wala 76 283 98 69. boo ñëwee dina la seetal te lépp lu muy faj ci alxuraan la ko teg. ci feebar yi may bëgg lim nerf sciatique hémorroïde ak yéen ñi am jafe-jafe ci kàttanu sëy wala ngóor yéen ñi bëgg a am jëkkër.

muy faru yéen bëgg tukki te am jafe ci wàllu kayit yéen ñi tukki ba pare am ay jafe avancement ci seen liggéey ñii nag bu leen fa kenn jiitu muy jigéen yuy sëy te seeni jëkkër loxo bi dafa dëgër ah mbokk yi ak Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall jaaxle jeex na faj aajo moo ci gaaw ku fa dem sa aajo faju ticket de consultation bi 2000 francs rek la. auzubillahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfe sëriñ Tuubaa jaaraw la ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi nuyu mbokk sénégalais yëpp di nuyu mbokku àddina bi yëpp rawatina kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak mbokku taalibe yi kenn ku ci nekk rek fa nga nekk ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la jox sa cër di la sunu borom jox. tey ji nag ñu dellu fii ci géejawaay arrêt du bales ànd koog yéen waa télévision bi fi ñëw pour ñu waxtaan ak yéen ci lépp li nga xamante ni yéen ñu koy laaj rek daañ ci mën a tontu suñu kéemtalaay kàttan te mu tegu ci dëgg tegu ci diine tegu ci lislaam incha allah rabbi jërëjëf laaj bi nga laaj. ko xam Serigne Lamine Bara Fall xam ko xàmme ko ràññee ko ci bi yi ngeen di faral di gis écran bi comme ni muy bàgg bu rouge ak bàgg bu bula yàlla dogal na nag historique am moom maanaam fu mu jógee luy cosaanam jaaro yi nag ci ay années deux mille dix deux mille onze deux mille douze ci laa commencé man liggéey jaaro yi depuis deux mille dix ak léegi kon def naa ci douze ans ñëpp xamee ma ko nag alxuraan nak day faral di xuma shahibna ila bi maalibna nit da ngay wax li deug da ngay wax lo loo dund. loolu mooy li mu ci man waye man nit gis naa ko ci ay kilifa diine kilifa ada bu ñu fàttali ko en 2012 jëm suuf manam 2010 nangam bam koy créer président dar philip bi fi nekkon muy maître Abdoulaye wad Serigne Saliou mbake yekati na jaaro bu mel ni jox ko ko. ci ziare bu mu ko ziare joon ci Touba bako Serigne Saliou joxe ci ziaram bam ko defone boobu politiquement dafa bare woon coow ci réew mi ci maître Abdoulaye Wade ci wàllu faluwaatam ak yu bari président de la république denc ko ci turaaram fàtte ko ba mu tudd gént sëñ saaliw di ko feeñu di ko wax ni am na jaaro bu ma la joxoon moom moo ko doon nettali loolu nag bokkoon na ci jamono jooju man li ma inspiré man it ma xool jaaro bi ni mu bindoo per bi ci nekk ak li ci nekk lépp ak xam-xam bi ñu yàlla jox ndax jaaro yi dafa ànd ak ay ñaan ci alxuraan ak lépp a ngi ci biir lépp loo xalaat rek ñu ngi ci biir ci alxuraan xam naa dinañ ci gën ñëw incha allah ci laa nag tàmbalee nag gëstu ci loolu 2007 2008 2009 2010 boobu président de la république Abdoulaye Wade mi ngi fi ma commencé nag ci gëstu di ci yokk samay gëstu bu baax ba ne fi Serigne Saliou jógee en 2007 2010 nag ci laa ko lancé ak mu commencé am doole 2012 nag ci la ko ñëpp xamee ci man àddina bi yëpp ma bokk ci. première sëriñ bu njëkk génn ci télé di wane jaaro ak di ci wax te boobook suñ joon yàlla tey ñu ngi koy def te nee nañu lu yàgg dëgg la boobook léegi nag ñoo ngi dégg ay ñu bari ñi ñuy wax boroom jaaro yi waaye bu fekkee ñoom ñooy boroom jaaro yi nañu wax seen historique wolof nag nee na jënax moom bu génnee ñu ni jënax waaye ba ca topp ñu ni jeneen loolu mooy historique bi Mame Rane ci question boobu nga ma laaj moo taxoon leeral boobu mënul woon ñàkk ñu def ko ci Euh, man ngi lay nuyu bu baax a baax a baax kontaan naa trop ji la ñaanal parce que danga ma jële fu sori <laughs> yaa wax dëgg yàlla fi ma nekkoon sori na metti woon na lëndëmoon na waaw mais ba ma jotee say sangat sa jaaro say li ma suuroo yépp li ma yónnee yépp macha allah waaw léegi maa ngi maa ngi nekk maa ngi nekk si activité boobu xam ne maa ngi si évoluer bu baax a baax a baax te autant ñi ma woon ñi mel nga ma maa ngi lay sant bu baax yal na la yàlla gën a dooleel si li ngay def yàlla taxaw la parce que franchement Youssouf xaw ma sax lan laa war a wax parce que macha allah danga ma jàppale si lu bëri bëri bëri bëri yal na la yàlla fay fekk sa njaboot yal na la yàlla nga gën a dooleel waa àdduna nga gën a jàppale waa àdduna sama xol fees na parce que daf ma jëree fu sore sore sore sore sore yal la yàlla defal jàmm yal la yàlla taxawu yal na sa njaboot jërëjëf waaw jërëjëf Mame Rane euh, vertu yi nga xamante ni moom ngay laaj nag ci jaaro wi lan mooy ay njariñam njariñam nag euh, yaakaar naa ni yàgg nañ ci sax di ci wax waaye dinañ ci leeral ginnaaw laaj nga ma ko jaaro li ci gëna am solo moy daf lay ar pour chat dalay ar pour lamine dalay ar pour rap dalay ar pour jinne ak seytaane ak nit guddi ak lepp luy lool rek tax nit war nako am karange ndax yooyu moy yakal nit loolu moy tax nit ñi ñoo yor dara ñaareel mbir ba day ubbi say buntu wërsek ndax nit wërsek ay buntu la nee ñu buntu wërsek yi juroom ñaar la am ñu nak ñu naan fukk buntu wërsek la amna ñu naan am lu ko ëpp waaye nañu japp exemple nit ku nekk ci ñun bu sa juróom-ñaari buntu wërsëg ubbeekoo di nga dund ci kaw suuf ba jóge fi te dootoo soxlaal kenn dara dootoo bokk mukk ci nit ku naan jërëjëf dañ la naan jërëjëf xaalis day ñëw bu baax nga am avancement ci sa liggéey te xaalis boobu su ñëwee day toog ndax nit ñu bëri membrane dañ am jafe-jafe wërsëg bi day ñëw mais du toog mu adama yi may seetaan ñu bëri ci ñoom am nañu wërsëg waaye seen wërsëg mënul toog seen loxo lu ñëw rek day dem ndax di ci gis ki nga xamante ni mën na am un ci commerçant waaye lu lépp day seey mën nga ci gis ki nga xamante ne fonctionnaire de l' état la day fayee ko léegi salaire am la première balay le cinq lépp jeex di nga gis ki nga xamante daana la man alal ju bëri mooy jaar sama loxo waaye day seey ba damay yeewu suba tomb ma diw sama mburu sax sëñ bi du ma ko mën a am rawatina nag ci wàllu bayre da ngay am bayre yaa xam ci bépp activité commerciale booy def wala ngay yëngatu ci wàllu développement wala ngay yëngatu ci politique wala ngay yëngatu ci lu mu munti doon ndax am ñoo xamante ni duñu ay leader politique mais dañuy yëngatu ci politique dañuy jàppale nguur bëgg ñu jox leen bopp wala ñu bàyyi xel ci li ñu liggéey wala ñu bàyyi xel ci li ñuy def am na ñu nekk ci ay entreprise am na ñu nekk ci société te jaaru itim comme ni ngeen ko gisee dafa baax ci kuy tukki ku ñuy tukki ba pare am problème mu këyit ñoo gën a bare ci réew kon jaaro bi baax na ci ñoom ñi xamante ni nag ñoom bëgg nañ ñu jóge ci réew mi dem bitim réew ñooñu itim jaaro bi baax na ci ñoom lii moom nit du ko takk demande visa ñu rejeté foo bëgg dem ci àddina loolu daal mooy membrane li nga xamante ni mooy njariñam nit nag bala mu naan day mën a dimbale kenn xool leen ko moom jëmmam ba pare te képp ku ko am dootoo am soxla buy fanaan di nga am sutura te di am sag rawatina nag ci wàllu wér-gu-yaram daf ciy dox ndax buñ la koy jox fay ànd ak secret bi nga xamante ni naa ko leeral ndax day dox ci wàllu wér gu képp ku wéradi takk ko rek mooy ci kàttun yàlla yàlla dina dimbale ci sa feebar feebar boobu nu mu munti toll ci takk gi rek waaye dana am lu mu àndal pour sa wàllu wér-gu-yaram spécialement kon yaakaar naa ni loolu membrane am na solo Vraiment, c'est vrai qu'il est rare que les, que les de nos jours puissent faire ce genre de choses. Je vous remercie énormément. Maintenant, en ce qui concerne la bague, en fait, je voulais faire cette bague-là parce que le, délai était déjà court. Hein. parce que quand le délai est court comme ça, ça nous permet de, de gagner énormément. Je ne sais pas comment vous dire encore plus merci. Je ne sais pas comment mon mari peut vous dire encore merci pour cela. Que Dieu puisse vous remettre au centuple ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ferez. Que Dieu puisse vous remettre au centuple, que Allah puisse vous remettre au centuple ce que vous faites et que toutes vos affaires puissent encore plus, encore mieux même, encore marcher. Car c'est vrai que quand on fait les choses avec le cœur, Dieu nous le rend toujours au centuple. waaw question ma Lamine créé li tax ma gën ko créer itim bokk na ci euh, nit ñu bari dañ daan ñëw ci ñun ay jamono lu jiitu loolu doon wut si ay gàllaaj te jamono jii ñu nekkit nit ñi mënuñoo takk téere mënuñoo takki ndomba sangu bu normal sax nit ñu bëri mënuñu ko ndax dundin bi waaye jaaro bi soo ko amee dootoo takki gàllaaj ndax yeneen yàlla muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa digle nit mën ngaa takk benn jaaro ci góor jigéen nag yàlla mën na ko may mu takk ay takkaay yu bari yu mais góor moom benn jaaro jaadu na ci moom ñaar bi itam amul danger mais góor gu nekk war ngaa takk benn jaaro xaalis jaaro boobu itim na nekk ñaan moo gën mu nekk un jaaro bi nga xamante ne amul dara amul ñaan dara ndax ñaan yi ci alxuraan la per bi aqiqa la màkk lay jóge comme ni ma ko waxee sànq nit ñi ñoo soxla lu leen aar ci rab ak jinne seytaane ak defkati yu bon yi njibar yi xeex yi nit ñi ñoo soxla wërsëg bu ubbeeku ndax àddina bi ñu toll nii nag ñëpp a soxla ñaan te ñëpp a soxla gàllaat loolu moom nañ ko wax rek te dee waaw suuf bu sutanteere dañ ko jàll diw diw bo gis safara am lu muy diwo kon nit ku nek war nga am ay ñaan yoy def sa ñaan nak tolaw am ñu mën a ñaanal seen ñoo ñu taxul ñuy wax ñi mën a ñaanal seen amu ñu problème bop ñi nga xam te ne ñaanal seen bop dañ soxla ku leen ñaanal kon jaara bi foofoo taxo ñu wut ko ñi nga xam te ne mënuñu takk téere mënuñu takk ndomba ñu tak galaj wala ñu di sangu à tout moment mais jaara bi nga xamante ne nit ku nek ko tak sa loxo mu rafet ta en même temps mu nek sa ñaan pour ku la def lu bon bu mu la laal pour sa wërsëg ko ta nga am luy tok mu dàqal la rab dàqal la jinne dàqal la seytaane dëgg yàlla ayut. waaw jërëjëf Mame jërëjëf question boobu itim am na solo muy lan mooy différence su entre bleu ak rouge bi couleur yi moom damay leeral amu ci benn différence li am solo mooy gàllaaj bi li am solo mooy ñaan bi nga xamante ni moom lañ ko moo ñaale liggéey ko ci biir ñaan bi rek am solo ak matière bi mu nekk xaalis ak per bi nekk aqiqa ci sama secret man xam-xam bi. rouge am na góor ñu ko bëgg di ko takk comme nii ngeen gis ma ko takkee sama bos am na te ni bleu lañ bëgg di takk comme nii nga gis ma takkee sama bopp am na te ni ñëw ne la sëñ bi ñaar yëpp laay jël ñaar yëpp laay jël njariñ yëpp laa bëgg li ci nekk lépp ak njariñ yëpp laa soxla waaye njariñ yi baatin la ndax baatin lépp kenn mënu koo leeral ci télé njariñ yëpp kenn mënu koo wax waaw ci kàttanu yàlla ak baaxam mais daal euh, différence bi moom bleu la ak rouge ci kàttanu yàlla. salaamaaleykum sëñ ah man de aw ma sa fay wax deug yalla parce que bima ñëwé ñëwee Belgique tukki woon naa def 3 ans ñu delloo ma aw kayit ak yalla def ñu boole ma ak yow ma ñëw seetsi la arrêt du balees ma la ah man de jaar bi may dégg la bëgg bi ma joxee jaaro bi ma dem ñaan visa dëkk bi bima ñaan visa nak dëkk bu mag la dëkk bu jafé visa sax la ñaan muy Angleterre ma ñaané ñu jox ma visa trois 6 mois maag sama doom ma ñëw fi Angleterre dugalaat kayit bima ma ñu jox ma 5 ans direct ak passeport aw ma nag sa fay ma ngi lay yok di la ñaanal yalla na yalla fay yalla na Serigne Touba fay ak serigne bara daa contane na ci yow torop torop torop parce que li ma la waxon yëpp defal nga mako wax deug yalla waaw jërëjëf Mame Rane laaj bi nga laaj it wax deug yalla dinañ ci dellusiwaat wax ni amna solo moy bag bi est-ce que c'est mystique wala c'est magique waaw euh, ñu bari nak dañ makoy laaj c'est pas magique ndax magique dafa nek lu haram ci l'islam magie maanaam luxus jaaru yi du jaaru luxus jaaru la bi nga xamanteni c'est mystique dafa ànd ak ay galaj ànd ak ay ñaan ci ne ma ko waxee woon sànq mais c'est pas magique wa amna ay bag magique mais lolu ku du julit wala ñaneen ñokay def mais li ay ñaan la pour dimbalé la pour nga jëm kanam pour nga am wér pour nga am wér gu ay ñaan la ñaanu julit ñun suñu bos du dox ci magie du dox ci luxus du jël alalu jàmbur du def nangam jaaro la nag bi nga xamante ni nag c'est mystique am ñaan am gàllaaj foqet la ndax boo ko takkee lépp loo bëgg ci looy xëccoo jongante c'est normal nit ku nekk bëgg nga jëm kanam ki bëgg poste bii yow nga bëgg poste bii yow nga bëgg avancer kee avancer wut yow nga am am sa ñaan dem sa yoon nga bëgg examen bu doon ñaari nit a koy xëccoo yow mi ko am gàllaaj bi am ñaan bi yàlla mën na la see dimbali kon foofu la ñuy bëgg waxee ci wàllu foqet bi waaw jërëjëf maam Rane laaj bi ma laaj mooy est-ce fait à base de Coran maanaam ndax alxuraan lañ ko defaree waaw jaaro bi alxuraan lañ ko defaree ay saar lu mel na Fatiha Falaqi Naasi surtout Yaasin Amana Rasul Alif Lam Mim Zalikal Kitab surtout jinni ak lépp lu ñu xam ci alxuraan ak xasaayitu Serigne Touba moom lañ ko liggéey ci biir. boole ko xam-xam bi ñu yàlla may ndax nit dafa am complicité ak nature muy garab yi nga xamante ni itim. ñun ci la ñuy ñaan ndax ay sëriñ lañu dañuy utiliser sunguf dañuy utiliser ren dañuy utiliser nangam mais gàllaaj yi ànd na ceeg yooyu ndax jaaro yi dafa ànd ak ay bayre te bayre am na sunguf yi nga xamante ni itam mënu ci ñàkk mu ànd ci ak ñoom. li nga laajaat mooy jaaro bi lan moo ko mën a toj ak li ko mën a yàq. jaaro bi moom dafa wuruslu dafa wuruslu maanaam dara du ko toj. dem ci armeer dugg ci duus sëy sa sa borom kër wala sëy sa soxna. xanaa matière bi ci boppam rek la ñuy bañ lu ko yàq lu mel ne maçon yi koy faral di jënd ci ñun. dafa am matière bu nek ci ciment bi nga xamantene da koy yak damay faral di wax ouvrier yi kay faral di jënd ñu sam ko taw wat gor ko ndax galaj la waye ci walu toj mom nañu japp ni kep ku ko jënd sama bos dara ci adina du ko toj fo mën dugg ak lo mën def dara du ko toj kon nak lolu mom amna solo waaw jërëjëf maam daan ci laaj bi nga laajaat encore ba tay mu jëm ci walu jaaro yi dañuy dégg ni dafa am ay vrai ak ay faux nan la ñuy xamee vrai bi ak faux bi sëñ Lamine Bara Fall man sama bos laa xam wolof nee na nag sama boppay metti ak suñu boppay metti bokk ku sa bopp di metti yow la engagé bopp jàmbur yii metti nag ñun suñu yoon newu ci loolu man sama bopp daa xam nit ñi xam nañ ma ci yàgg naa ci te xam naa yàgg naa def liggéey bi te ñëpp seede nañ loolu wax naa ko sànq ba tey ni ngeen di xamee ni original la comme écran bii ni ngeen koy gisee juróom ñaari gàllaaj la jaaro bi àndal du jaaro kese képp ku leen jox jaaro bi kese nax na la jaaro bi du liggéey bu ndaw juróom-ñaari gàllaaj lay àndal bu la koy liggéeyal day laaj sa tur dañ lay laaj ay information say infos ñu mën la ci liggéeyal dañ koy toog ñaan ko bind ay alxuraan jox la am na looy sangoo am na loo takk am na loo jiwoo am na loo naan kon lii du liggéey bu ndaw ñetteelu secret bi ci am jaaro bi ubbi wërsëg kenn du ko teg ci suuf loolu ñun xam-xamu jaaro la ñuy jàng ñun loolu la ñu xam ñu bari dañuy dem ci wut nit di takki jaaro mais bépp jaaro boo leen gis si suufu jaaro bi ñu teg ko jaaro boobu dootul ubbi wërsëg li tax sank nak man ni dara du ko toj parce que ñun ñu alcorane duggal ko ci bir jaar man duma liggey non man lima lay jox dama la kay jox nga nan ko tak ka sango ko diw ko mu activer wu sa yaram dara do ko toj alcorane duñ ko bind nit di tak diko dugg ak mom ci douche di sango lolu itim dafa wara mata leer. mu ngi ni boko xole jaar bi day ubbe ko mamran gis nga ko ko bi man bepp jaar bu may joxe dañ koy ubbi ci suuf xam-xam nak ikuma la ku nek noko jange ñu jang leneen alhamdullilah rabbil alamin lañ jang baxna sikulumako waye man lama jang jaaro buy ubbi wërsëg laa jàng kenn du ko tëj ci suuf loolu itam lu am solo la waaw maam raan question bi moom da nga ko boole muy nan nañu mën a def ba jot ci jaaro bi ak nan naka lañ koy jëfandikoo yaakaar naa loolu nga laaj comme ni ma ko wanee léegi rek ci jëfandikoo bi ci écran bi juróom-ñaari gàllaaj la ku ko jënd man sëñ Lamine Bara Fall di nga dégg sama baat ndax yeneen a ngi may seetaan xam ngeen samay baat xam ngeen samay audio dinaa ko foto gàllaaj bu ci nekk ni ko gisee nii un deux trois quatre cinq six sept dinaa bu ci nekk naka nga koy jëlee ak naka nga koy utiliser lépp luñ la war a matal joxal leeral ak information dinañ la ko jox leeral la ko gisee ma jël sama temps def vidéo di nga gis ma def audio leeral la sa gàllaaj bi sa jaaro bi ak juróom-ñaari gàllaaj yi mu àndal naka ak nan nga koy jëfandikoo ba lépp daal dee kaamil jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay siyaare bu baax a baax wax dëgg yàlla jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax ñun kay ñoo lay ñaanal faal jërëjëf man mi daal bokk naa ci say taalibe waaw man mii daal xamal ni daal wax dëgg yàlla foo toll bàyyi naa sama bopp ak yow daal Fall waaw moom sama xol dafa sedd guy guy ci daal kon nag moom daal yal na suñu borom bi àggale yéene ji rek ba ni ko bëgg daal suñu borom defal la ko may la doole kàttanal la ba nga xam ne ni ngay dimbalee jaam ñi daal wax dëgg yàlla ba ñëpp seen xol sedd na ci. ndax man suñu borom daa dogal daaw bi yàlla dogalee léegi ma yor jaara bi dafa am ku ma ci dajeel biir Milan. waaye xamantewuñu mu di ma xool mu di ma xool mu ne ko ah sëñ bi na nga def mu ne waa maa ngi fi. ma gis mu takk jaara bi moo ma gis mu xool ba sam xool ma ma daa ba ma ba ma xoolee ma gis mu yor ab jaara ma xool mu gis mu xool ma xool ma ma xool ko mun ne waa sëñ mi na def yaa ngi jàmm mu ne sax maa ngi jàmm baax a baax mu a ah, yow daa mel ne yow mii bu nu waxtaan daan daan déggante de mu a ko waaw mën nañu mën nañu waxtaan de waaw ay Sénégal lañ te ñoo bokk fu ñu jógee te daa mel ne yow ab taalibe nga daa mel ne màggal nga jëm ne waaw man de jëm nii mu ne waa sëñ bi yow foo eh, sa jaar bi foo ko defarloo mu ne foo defarloo sa bopp mu daal di ree ma ne ko Sénégal mu ne ko déet ko waaw moom la mu ne da ngay da ngay wax rek mu moom ma de mu ne ma ah, kon de saa waay na ko fonk bu baax ci téye ko bu baax loolu la ma wax moom ma ne ma mu ne ma waa la wax loolu de kii bu ko caaxaan man ne sama lii ma yor nii ba ma amee ba léegi caaxaan moo ko ca maa ngi ci gis li ma waxoon ca waji ñoon bis ko kérok la ko mujjé gis ci la ñëk mujj a gise ci la ñëk gisé kérok keroog loolu la wax ci jaara bi né ma nang ko fonk bu baaxa baax de sama waji ki xamoo li ci nekk lepp kookee ma la bu la ko wax ak bu la ko wax li xam nga ko xolam sedd waaw kon na xam nga né kon señ bi mom yow mom deel wax amin rek ci xam ne wax deug yalla bokki talibé ñëpp ñi ngi lay ñaanal ba faal euh, nan ngay mëna def nak ba jot ci c'est vrai ndax bari na ñu nekk Europe gis te soxla ko amerique ndax lii moom fépp lay dem ci àddina ku nekk Dakar nekk Matam nekk Fouta wala nekk Kolda wala fu mu mënti doon it danañu xefe ba noo si jotee ndax am nañ ay livreur am nañ ay cak-cak am nañ ay correspondant yi xamante ni ñoom ñoo ñu jëlal suñuy colis di ko yóbbu dans les régions mais pas représentant correspondant ak représentant bokkul ndax yii dafa nekk yi nga xamante ne dafa sacré maa koy liggéeyal sama bopp directement donte nag am naa ay secrétaire ñi nga xamante ni ñooy wuy samay téléphone ne passé ay commande ñoy def liggéey bi amna sama biir local ndax cabinet la yor mais représentant mom aw ko fenn kep ko wax ne représentant sëñ Bara Fall laa ci àddina amut waaw jërëjëf euh laaj bi nga laaj it wax deug yàlla tay mom say question mom c'est tellement pertinent moy est-ce que jaaro bi dafa am ay sacrifice adina il y a jamais de résultat jamais jamais de résultat sans sacrifice sacrifice bi nak nekul nit ki bo jëndee jaaro bi dañ lay wax xel nangamal nangamal nangamal tuural deret ñun du ñu def loolu bu ñu liggéey noonu ñun suñuy ñaan suñuy sacrifice mooy lan jàng alxuraan wàcce kaamin togg ay bernde def ay sarax sarax ak sacrifice nag bokkul ñun sarax la ñuy def sacrifice nag mooy nga sacrifier dara nga lor bakkan te ñun bu dañuy xeex loolu ñun ku ñu xam ci àddina xam ne ñun dañuy xeex loolu lor bakkan bëgguñu ko rey tuur tuuru yooyu ñoom dañ ñun dañ koy xeex ndax ay taalibe lañ jaaro yi amul benn xërëm amul benn shirk amul dara li xamante ni rek génn na yàlla génn na yent bi génn na diine génn lislaam amul kenn ku koy jënd ñu rey loola nag amul kenn ku koy jënd ñu rey loola gëléem amul kenn ku koy jënd ñu rey loola mbaam wala fas wala tur loola deret fenn sacrifice bi ci am nag mooy ñun ñooy takk xañ suñu bopp ay guddi di leen jaamul yàlla ngeen tëdd dina law ñun ñu toog di wërd ngeen tëdd dina law ñun ñu toog di julli ngeen tëdd dina law ñun ñu toog di leen ñaanal loolu mooy li nga xamante ni ñun ñeme nañ koo sacrifier te loolu ci ñun la jëmaat tax suñu jaamu yàlla la ndax suñu liggéey ñoo opté wu pour loolu te loolu lañ xamee sëriñ te loolu mooy xar baaxu sëriñ nit ñi tëdd di nelaw yow nga toog di leen jaamul yàlla di leen ñaanal di leen liggéeyal di bind ay alxuraan di bind ay ayat di bind ay xasida di leen ñaanal ci seen jëm kanam jëm kanamu nit nag mooy wér-gu-yaramam ak lu ko yokk ak lu ubbi wërsëgam xaalis mën a ñëw bu baax tey toog sa loxo conclusion bi may tëjee nag mooy di sant yàlla julli ci yonent bi di wax allahumma sant yàlla bu baax ndax yàlla moo njëkk wax ci alquran maa faratna fi kitab min shay'in law anzalna haza alquran alal jabalin laraaytahu xaashi'an mutasaddihan mutashaddilan lépp mu ngi ci biir alquran te lii ñuy liggéey it génnul alquran kon jaaro bi nag képp ku ko soxla mën nga ñëw géejawaay arrêt du bales kër Serigne mooy sama cabinet fi may defee consultation ku woote téléphone dinañ la wax prix bi lu muy jar su la ko jaralee nga ñëw toog ñu jox la jaaro bi ak say ñaan yi mu àndal ba mu leer nañ. Envoie-le ko ci sa whatsapp envoie-le ko say audio ba leer nañ nga dem deglu ko def ko nga faju yalla wéral la ndax docteur yi nee ils n'ont pas l'obligation de guérir mais ils ont toujours le devoir de faire minute on n'a pas l'obligation de guérir mais on a toujours le devoir de faire le devoir de faire nak moy liñu yalla jox daañ ko bokk ak yeen ku ko soxla Touba yaa ngi koy jëlee janatuma waa ceetu hôpitalu Matlaboul Fawzeyni kër Serigne Lamine Bara Fall di nga gis fofu boutique bi gis tableau beeg lepp ñi ka soxla ci géejawaay am nañu boutique univers bio mi ngi nekk gaday tak ak Senelec gaday bi foofu it képp fa soxla ding ko fa meuna am ding fomona ko fa meuna joté wa ila fo nek ci adina so woté téléphone it danañu xefé ba nga jot ci ñu bëgg ñëwal seen bop nak pour gis ma ma ngi nekk Dakar lundi mardi mercredi ak jeudi 10h lay tidji ba 4h 5h su ma julee tàkkusaan rek dañuy dem wacc nañ kon nak kep kuma soxla bëgg sama jëm amna itim ticket de consultation so beugé consulter pour xol sa yaram wala nga beug def consultation à distance pour def li si xaar mën naa ne wala nga ñëwal sa bopp dagg sa ticket gi gëssal ma sa bopp bu féké da ngay jënd sa jaaro nga jënd sa jaaro bu dé da nga bëgg ay ñaan wala nga bëgg yeneen wala lo ci yok wala lo ci dolit loolu yépp ay sam lañu te duñu seexlu jur ñu kenn té képp ku ñëw dañ la dalal danañ la respecté te respecté la confidentialité des autres képp ku ñëw dañ la may njekk ak teraanga ak sutura ci li ngay wax dina yem ci suñu diggante allahuma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim jërë ngeen jëf merci beaucoup. faal faal faal ah jaar bi moom macha allah macha allah bi ma ko takkee moom gis naa si ay xéewal yu bari baree bari xam nga man Koweït fi ma nekk nii moom amoon naa problème xaalis lool wallahi azim temps yi may wax ak noonu pour envoyé la xaalis bi looloo taxoon mu jël temps moo taxoon mu jëloon temps parce que yoruma woon xaalis bu bari te damaa waroon fay location fi ma dëkk

sant naa yàlla bu baax man daal ma yàlla rek mooy buur ak yeneen ak yeneen ku may liggéeyal boo ma daan fay day yàgg ku ma téyel sa doom boo ma daan fay dang na man après mais danga may fay ba may ma danga may fay ba tegaat si dara